taxaw ça va. ça va. bëgg ñu waxtaan. na chéri. ju waxtaan la chéri xam nga ni sama diggante maa yow jàmm doo nga ci am dëgg. ndax diir bi ñu nekkee fii ak léegi. amul kenn ku ñu mës a ci àddina. du dëkkandoo du sama mbokk seen mbokk. parce que saa su ne ci samay tere ak samay wax dëgg. umu. Hmm. dama toog daal ma am lu xalaat mais ma ci benn suuf dama ko ma ko def naa ci toog loolu. Ah, ah, daal dama toog daal ma ne sama salon dama lay wutal rakk ci kaw nag mu neex la nga ne waaw def ko nga ne ma ma bàyyi ko te bu ma ci am lu metti andu ci banex ndax fi tay su amé ñoo manam mo moom soxla top sa ginnaaw. chéri hmm. man bama takalé wuddu dama ci contane te hmm. li sax ba nga ko wara def dafa yagg waye sax yow fuy ñaani ji. mais chéri ñu ma tamay ñaan di dama ko xalaat rek dal la koy wax xam ko ku ma fenn sax fa fan laa jël di dama ko xalaat rek tek waxaguma ko doomu adam yaa dégg jàppaguma nag kenn liñ toll nii xanaa kay dafa am foo xam ne fa foofee laa bëgg a dem su ma demee ma teg ko seen loxo dëgg ñu xool ku ñu may takkal ma takk ko def ko kayit pour di su ay bànneexu sëy ndax sama diggante maayo li ma ci am mun moo ko am feneen am xanaa kay pour que bu ñëwee rek ngeen bokk too ci kër dëgg léeg-léeg ngeen ni mën a déggoo mu segenau, sa ginnaaw dëgg nga di nga di digal bàyyi lii jàppal lii defal lii. d'accord chérie. ok madame. ok ok ma chérie vraiment.